والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلا بك يا رمضان يا هلا بك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين صوم وطاعة لرحمة هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة Euh, moom. ah nen joo gis. Ah. jëf lay fay. wallaahi ndeysaan. te bu jëf rafetee nag. Mhm. fa ñu jaajëfal. wallaahi sa soxna si. waaw sant nañ ko. ndax bañ fi ñëwee ba léegi. Mhm. marunu xiifunu mhm. raflewunu. moo ko waaw euh, bu loolu wéyee. ah tey jaar naa ca joon. baal bi la waxee joon rek ngay jaar naa ca jon ndax umpale woon it ba ma fi nekkee léegi maanaam daal ñaari ayubis daal man na ko mbaa mu romb ko mm-hmm. waaw mm-hmm. te nag dama ne woon damay indi ummi mu ñëw nemmeeku si la rek mm-hmm. kon tey jii daal da dama damaa jàpp yoon pour pour dellu dëkk ba ah waaw waaw dëkk ba eh, laajte naa horaire bañ ni ma vingt deux heures la war a dem dama la ko ñaan dara méttiwu ma fi ah, bu doon ay neex-neex dong du ñibbi de ndax fi lu ne nak lu ma musta lek lu ne lek nako fi fii ginaaw yalla ak yow waaw sama xol sedd bu guuy ci yow ki ku baax ngi ni deug la waaw deug la euh, jon nak ngeubal na ma lu doon. ha ah? ay wa ngeubal na ma de <laughs> ngeubal na ma de. <laughs> Ah, ah. yalla yalla bu yalla bu la kiye ci dekk bi yeb damay ra ah wa adil joon lum la defal. lum la man mënti defal. damay ragal mu dekk bi yeb Tiwaawan yëpp dërëjëf bi nga ngàppal na la eh, ambolo yow nag yow nag foogoon naa ni wax jii du génn ci sa gémmiñ waaw waaw non yow xam nga xam naa te su ma nee xam nga xam naa war ngaa noppi dëgg la waaw man daal li ma la mën a wax mu gudd mu gàtt mooy mhm. ummi dama koy yóbbaale ummi ummi waaw dama ko yóbbaale Mohamed doon jox na jox na ma la mu ko war a jox. Ah. ba mu ngi nii sama poos bii. dëgg ndax umpale woo ummi ummi ummi man damaa jaaxal. wallaahi gis nga kër jàmbur gépp gis na ma la waaw doogu ma la waaye nen. Hmm. dama lay sant yow di la gërëm. Hmm. nga li nga def nii. waaw mënoon na la si bañ a fekk. Hmm. sama rakk ji. kañ laa ko gëj a gis. yàgg na. nga def sa jëf ju baax. jëf sa jëf ju rafet ji. nga ne nag. noo def dinaa lu yóbbul moor mhm. nga seet ko nga ganesi si ko mhm. ngeen ñëw ganame si si koor gii kon loolu dama koy rafet waaw euh, féddali nga ba ñu nekkee xale man ak yow ak Père John ak Dame ba ñu nekk xale di ànd yaa ngi fàttali ko lu garaaw wallaay lu ne jafe noo doj yaa ngi fàttali ba laan ànd sa sa toolu bay Moussa yi da sàcc màgg. <laughs> Eh, waaye gaawoon nga nag. <laughs> yow mii. Mbaaroon jiite affaire yi <laughs> mooy yow. Mbaaroon koy jiite sax xam xam nga lu ma ci gën a neex. waaw balaa Baye Moussa di dàq. yow si daal dañ lu ko yëpp. mu ngi noonu mu ngi noonu. mu ngi noonu. wallaay moo gënoon di neex si groupe waaye daal gis nga. waaw nen. Ah. wallaay sax daal gërëm nga. waaw waaw waaye boo yeggee. Mhm. nag ma nuyul waa Ngatoumane yëpp. waaw foofu noonu il faut ma ñëwaat. Mhm. ndax tey. waaw tey boo amoon doom koo koy duppee kan la koy tuddé xana bo amon doom bu jigéen tey doo ko dippee ummi mii mom la koy tuddee du mom nga waxon ba ngay ndaw ba ba moom laa fié nak waaw nga tok at yi sa tank teguwul dëkk ba jaaduwul dé ah bo toogee diir ñewal ñi ko dëkk ba insha allah rabbi waaw kay dina fa wajj man ak cawda mi waaw kay man ak sama lingeer bu ñaawul bi jeexna iya, Sénégal ba Sénégal daj ma fi dàq jabar xam nga gaay li may escalé moy lenn waaw moy moor daa ñaaw lu ne ñu wax ma ko. waaw waaye man yàlla suturaan na ma. ya loolu ngay dégg nee nañ ma damaa ñaaw. dama ni xoolal damaa ñaaw la ñuy wax. ñaawaayu góor ca poos bala mais mais ana ñaaw ana man poos bala. si si jantal jeex na sitin jantal. waaw sitin boo. <laughs> ah sitin doon de l'argent. ci sama waa ji. yow daal soppiku ko ba léegi dama lay yóbbante. waaw boo demee. waaw sa maire ba Ablaye Sow. waaw maire Kaffrine ba. waaw gars yi ñu ngi may yóbbante seen nouvelle. waaw. mu ngi liggéey. waaw waaye na gën a jàppale ndaw ñi. Mhm. na gën a jàppale waa Kaffrine. waaw surtout jàppale jàppale sëriñ. surtout naka kontaan naa ci moom. waaw. boo yeggee na nga dox yeggal ma ko. waaye déggoo ma. waaw maay dem ba maay dem ba jàkkaarloog moom wax ko la ma koy wax yow kay na sa xol <laughs> seet. en en tout cas daal. waaw ah. euh, euh, wendee seer. Ah. dinaa euh, ummi woolu naa ko ba noppi. waaw waaw xam naa ni mu léegi jomb léegi mu fekk ñu fi. incha allah ko defee daal. ñu mm-hmm. daal di jël alerte bi rek. jërëjëf jërëjëf waaw ah, xam naa nag gannaaw joon moom. man mii de. dëgg eh, waay eh, oui oh, ma ma ma tàggoo maa mënul tàggoo. <laughs> santaan bi jooy santaan bi jooy daa bëgg ba ba ma ma ma ma jox ko te xam nga ni moo. yor ah tàggoo na lu mu ko mënul rek. moo ah. a te toog. Mm, man xamul lu may def da toog yow xam nga ni kër gi yow yaa fi nekk man yàlla dimbali na ma xanaa ren yàlla suñu borom balaa tëbët gi dina ma dina ma bittee ay xéwal ma am xéwal man daal ndóol gi rek si lay dëkk rek. nga xalaat tabaski. boo xalaatoo sa pante gi. non non tabaski balaa laa wax xanaa yàlla dina ma dimbali ma am dara waaye nag maa ngi lay sant di la gërëm boo fi amutoon mu ñaaw ndaxte gis naa ni koor gi ba mu commencé ba léegi yaay def ndëgu ndogu yu baax ay saucisson lepp ya koy def format grier lepp ya koy def te dugewul sama poos bu jagg bi nak dang koy togg bam ni mut billahi ma ngi ñaan suñu borom ay yalla bu ma may xéwal ba mu utal la rak ñaarel yow nga lan di teew du dóor sa xam nga sa bop man ma bo te ba do la dig dig dig يا هلا بك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين صوم وطاعة إيه،, ايه ايه فرجة كوفرة كوفرة ايه يو يو يو تبي تنام كوفرة

yéen mu mën a fen ngeen nga naan toroxal ci biir nit ñi biir nañ leen kër gi mooy biir nit ñi barki yonent bi yéen a ma gàccaal yéen yéen a ma commencé rusloo ah da ngeen may wane léegi ay mag ngeen da ngeen maa léegi man ngeen yéen a ngi lëfër lëfër yéen a ngi duggur dugguri ngeen bëgg a jël seen responsabilité bopp bismillaay defe ngeen li ngeen def rafet na ñii fuñ jëm mama gàmm moo am ci koñ bi ñu tuddee ko Asia mii yaa ngi may dégg romb nag buntu kër yu bari ñëw ba suñu buntu kër gi mënoon nañu koo tuddee mbaa ñu tuddee ma ko waaye dañ koo tàn tànn moom ndax ak yaram ak tegginam ak nu mu mel ci koñ bi nijaay xanaa du keroog fii yaatoo gërëm leen tey nga bëgg a xalaat pour lan bu ñu amee gàmm duñ dem ci seen nawle ya te ñu tuddee leen ko ñu war a dem dafa ñoom teraanga xoolaatal li ngay wax. xale bi sa comportement lay gis moo tax ñu changé. yow yaa ma waa gërëm. waaw daa waaw daa ku def ku def lu baax ma gërëm la sama jikko la ku def lu war a def ma gërëm la. bu jamono demee nag waaw dinañ la woo bu jamono demee nag ba nga war a mën a toog. sa jikko ji de moo tax xale yi changé ndax comme que yow seen ndey yaa mën a toog xale yi toog ngay wax ak man jàpp seen digg di ma ban na bare wàcc nañu waaye nag man seen bàyyi kilifa laa ci koñ bi. looleen leen gàkkal sama der soo leen mënee nekk ay nit ma nekk seen xarit boo leen mënut a nekk ay nit nekk seen xarit. ah si noppi ah si dama ne nga noppi. majeur parti nga nekk loo leen bëgg rek def leen. loo leen bëgg rek looy seen xel may def leen yow nag sofi ko ma bett nga ndax heure su ma xëyee yow laa def sama xarit yaakaaroon naa ne leen buy am yow lay doon dafa ngeen rafet na koñ bii cër bi ma fi am jàkka ji ba koor gi commencé ba léegi. nafile bu ñepp gesso seen njabot wër leen boobu ba léegi mënumaa gesso ba gis kenn ci yeen ngeen japp ni loolu ndam la kenn ku nekk defar li nga def ni ngeen japp loolu moy ndam billahi barki baba Babacar ci loolu bëgg rek def leen loolu leen mel nak ma nak yow nag yow nag ah, maman su ma même ma la dama deglu wu la wax te bu may waxatee xalé nga toog lu ci dugg commencé nga yabaate nak yéen nag moom dinaa la seet waaw baax na baax na baax na yow nag ummi yow laa am yow laa wax xaw ma loo def sa robe bii ngay mel ni njulli dama ne billaahi bu démb nen bi muy dem new naa da ngay dem nga làqatu di xëriñ xëriñ ba mbàyyi la fi dégg naa néegu néegu daam nga làqatu ji woon foofu moom ñibbi sax rek gën nga làqatu fa ndax la fa xaw ma la fa daam waaye suba 22h pile maa bu gaaree hôtel heure fii di nga ñibbi dew ma. yéen nag ma bett ngeen su sew sa fi. yéen man comprendre ma kii dafa suriya wala dafa sarax. est-ce que amul jël bu bees wala lan moo ko daal. sa papa est-ce que doxaanul bi nga maa leen day doxaan. demoo ma bu jooy demoo fee ay demoo bu jooy. ah jooy mag jooy mag dimbali nu ngir yàlla. ay ay bul jooy ngir yàlla. bul jooy doo dem. loo dem jooy mag jàpp si rek nag mag rek mu ngi um dañu um na yaay bàyyi ma daa ma ñu jooy mag day soo rek nekkoo sama xal jooy mag waa kay waa moo tax ma bañ leen jooy nag di nga dem yow yaay kii dem doo dem waaye bu ñu um rek jàpp si rek jooy yi man jooy jooy leen jooy والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلا بي رمضان يا هلا بك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين